Bonjour, comment ça bu fekkee ne nekkuñu aw say nekkuñu benn te baaraam cër borom dëkk bi dafa am cër chauffeur bi daf si am cër ku ne tey même tey waxtaan bi kii sax daf si am cër pour waxtaan bi mën a ñuñ mën ko jottale Assane mi dafa am cër moom ay ay doomi aadama ay askan la yu nekk fi bëgg a dund jàmm si sen gox opportunité bi ma pour ñu ñàkk ma tay ñàkk am fi may laaj ci lu gàtt naka li ñuy fexé ba relever défi bi ak lan mo tax te lu am rek amna lu ko waral lu askan bi ñewuñu te askan bi aussi bu fekkee ne dégluwuñu leen ñoom ñu ngi ci sen dëgg ken warul len xass ñun war nañu gëstu aussi ba xam askan bi lu tax ñëwuñu donc ci introduction lolu lay ma laaj sama yaay nag lan mooy te bu demee danaa ah baytir xombal tojul fenn te loolu lay bañ te man dama ñëw pour fayse yaa ngi si dëgg ak lan ak lan keneen moom wax na dama bëgg di wax ñett rek pour mu gaaw damay bañ ñu. da ko ñemañul kon d'accord ngeen ne ñi ñàkk am nañu dëgg kon d'accord ngeen ne ñi ñàkkuwul am nañu dëgg papa. ñan ñoo fi ñàkku fii lan troisième dose ngay xaar d'accord léegi même laaj bi laay laaj papa lu tax ngeen ñàkku am gëm-gëm nangul médecine bi déglu di ndigal docteur mooy mag ñi dañu naa kii war a wax bu waxu rek mën na yàq waaye kii war a wax si wàllu sante bu demee ba ne man ñàkku naa kaay leen ñàkku moo waral yéen ngeen ànd ñeneen lu tax donc ragal moo la tax dem ñàkku ji am na ñeneen si xale yi xëj na dañu ne dañu bëgg a tukki boo ñàkkoo du tere nga am feebar yi et pourtant yi wax nañ la quatre-vingt pour cent cent pour cent amul pourtant seen wax leer na xam nga man suñu ma ne non état dafa war a ñàkku ñu ne ma keneen mais ku sorey waa ki nga xam moom ñoo dëkk suba ak ngoon waaye bu ñàkkoo kay man ma war naa xoolaat sama bopp maintenant kii ragal am na droit ragal parce que ñëpp yemuñu tey bu ñu newoon benn benn xar bu doon jàll fii léegi-léegi xar rek su ko defee yéen ñii di ngeen mën a dem gëstu ji ñëw toog ICP nekk lii ak lii ak lii gis nañ ko ci feebar bi gan nit ku nekk bëgg na aar boppam bëgg na am wér-gu-yaram am na ñoo xam ne daf leen di jaral ñu dem clinique di ko fay cinquante mille ay cent mille francs pour benn vaccin boobu xëj na ñooñu dañ ne dañ ko am dama jël sama première dose vaccination bi ma ko jëlee à un moment donné sama feebar ñu bëri di ma wax ni dama covid Dakar laa ko jëlee ñëw fii il ressentir les mêmes choses de nous les mêmes symptômes et pourtant wàlluma kenn nous sommes sama il y a aussi à tout moment may ak ma je bëgg deuxième dose mon ko pas, est-ce que su ma deuxième dose non non non non carrément deuxième dose donc après, ça je suis dans ma conscience pour dire vrai que ne man vaccination bi en fait si on définit la vaccination est-ce que c'est la vérité wala vrai que toutes les maladies yeneen yi nga xamante ni moo nekk. m'a maa jiite président le président en délégué de quartier commune Koumbol kon maa ngi leen di dalal jàmm di leen ñaanal ngeen am réussite totale ci mission bi ngeen di dox mission bu noble. di leen yóbbante nuyoo ak sant ak d'abord le ministre de la santé Abdoulaye Diouf mu jàllale ko ba ci président de la république Macky Sall ndax gis nañu taxawaay ak jëf bi nga xam ne nii ñoom jëf nañ ko ci réew mi depuis premier cas Covid 19 Sénégal ba dëkk bi muy liggéey bu rëy bu am solo ndax boo xoolee résultats yi ñu am par rapport ak yeneen pays africains yi par rapport ak le reste du monde yi nga xam ne Sénégal vraiment def nañ seen kéem kattan. pour aar feebar bi kon amal na ngeen ci dugal macha allah te amal dugal itam ki nga xam ne ni moo di sunu UCP bii ak mboolem personnel bi mu nekk ci poste de santé bi relais yi wax ko léegi mun naa leen a témoigner li nga xam ne ni ñoom loolu la ñu daj ci waxu la sax ci Covid bi mais ci wàllu wér gu yaram au sein loolu ci ci poste amel nañ ko soog amel nañ ko gërëm maa ngi lay sant ci turu carte yëpp parce que vraiment am nga def ko lu am solo daal voilà merci mais mais yow mën naa gëm ne yow nii toog yàlla jéggal na la parce que wane nga rus gan la waaye la nga wax yow mii dëkk bi ne man technicien de santé laa dam doon grève te joxuñu la sama àq ak sama yelleef moo tax ma que ya e dem nañu ba UGP sax dañ si doon buggal boole acteurs communautaires yi souvent xam nga lan laa doon wax acteurs communautaires yi bañ parce que seen intérêt la woon moment boobu. kon nag vraiment bu ñu yéen bu ngeen ñëwee fii di participer encore ci lépp bi lu nu mën a def nu bu loolu passé également am naa ci tuuti rek ñu ngi leen sant part ci développement argument yi ngeen jox nii parce que dafa nekk loo xam ne très important man dama mos a wax nii la lutte bii

dimbali ñu ba vaccination bi ñu bëgg a àggale parce que ñu àggale ko man daal loolu laa amoon moo leen di wax man daal jigéen ñi daal laay ñaax ak relais yi ak bàjjandi gox yi ñu jàpp ci mbir mi bu baax a baax a baax a baax wasalaam. lépp gërëm bu baax ci garaan la xam ne jëm nañ dafa ma jëm di gërëm it délégation monsieur le maire bi nga xam ne ñoo fi présenté monsieur le maire. waaw muy sëñ Mor Niang ñooñu nga xam ne ñoo ngi teewal monsieur le maire. moom maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen teewaay di rafetlu aussi yéen seen teewaay waaw di leen gërëm bu baax di wax ne kontaan nañu macha allah ndax nit moom amul lu dul sax te lii ñuy waxtaan yi tey dafa nekk loo xam ne dafay njëriñu askan bi yëpp Sénégal dans le monde tout dafay seen njëriñ.

njëkk ba dañu doon jël dañu doon am cas ñu envoyé ko district ñu prélevé dañu doon ay ay cas yu bëri mais bañ demee ba ñuy dépister sur place ku ñëw nga nga nga nga kii nga sensibiliser ko ba nga ba ko déjà ci à laps de deux ba trois mois am nañu fi plus de dix huit cas yoo xamante ne dañoo dañoo positif kon loolu moo leen di waral feebar mu ngi fi jógewu te lu ko fi mun a jëlee mooy ngeen respecter mesures barrières yi di takk masque di raxasu foo leen toll boo ko ba ñëw mu raxasu ba pare boole ci ñàkku ñàkk bi mooy moom daal moo am importance te ndeke boo gisee cas de décès yu am yu district am yëpp yëpp yëpp mooy ñoo xam ne ñàkkuñu benn yoon ñu benn yoon mais ñoo xam ne dañoo ñàkku te am feebar bi feebar bi da leen di da leen di feeb dañuy feebar tuuti rek après dañuy tane sans benn problème mais cas grave yi ñu am yëpp mooy ñoo xam ne ñàkkuñu kon jàpp leen ni ci képp ku ñàkku dina mun a aar boppam contre contre Covid message boobu la ñu bëggoon pour ñu informer beneen bi tam mooy jigéen ñi. parce que am na mbootaay bu dee nekk ci ginnaaw yoo xam ne boo leen mënul déplacé wu il suffit bu ñu bu ñu woowee ñun mën ñoo ndax nombre ñu soxla tamit information mun ngeen ko jàllale pour xamal population bi ni ki ñàkk yi ngeen toog benn place ngeen woo ñu parce que am na beneen bu ko def ñu déplacé wu ba ci ba ci ñoom envoyé équipe mu ne ñoom ñoo ñu ñoo sollicité woon kon ñu ngi leen di ñu ngi leen di sensibiliser tam côté boobu yéen groupement képp ku am groupement surtout président groupement yi mu waxtaan ak jigéen ñi ci nekk xamal ko importance vaccination bi bu ko defee léegi yéen da ngeen ñu da ngeen ñu woo ñu ñu ñëw fekk leen si place ñàkk leen am benn problème loolu daal kàddu boobu laa amoon pour pour pour expliquer leen di leen di remercier bu baax a baax ñu jox kàddu bi

Il a fait vraiment une animation très très importante. Parfois, il faut nga pour y aller les a à